kon ñeel euh, li ñeel décision bi yëpp mu joxe ko préfet de Ziguinchor pour que aujourd'hui Ousmane Sonko son mandataire mën a dem jëli euh, lissi mais mais ñu tere ko ko yow d'abord yéen ban ban jàngat ngeen ci def après cette décision bi nga xamante ne Ayib Daffé moom moo ko fësal ne dañu leen bañ a jox fiche de parrainage euh, que dañu joxe comme raison que direction générale des élections liggéeyul ban ban jàngat ngeen ci def. waroon a commencé mooy seen sama frère tàmbale mooy jaale jaale Bougane ak mhm. Sen TV mhm. ñu ngi koy jaalee ak famille sekk yëpp ah mhm. foofu laa waroon a commencé di wax ni nag débat bi nañ ko gën a recadrer pour pour pour bu ñu fi jógee sax au moins ñu am lu ñu mën a yóbbaale c'est important parce que Sénégalais yëpp ñu ngi ñuy seetaan ça veut dire ñu organiser ko ku am temps wax boo paree jox sa morom loolu dina tax bu ñu fi jógee ñu am luñ tënk mu bañ a nekk werante parce que temps dafa cher li gën a cher ci dund nit mooy temps. très bien imam yow la ñuy teg kon nañu recadrer débat bi ñu wax ci xam-xam. ku ne loo xamul nga am nañ ci ab juriste. l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. am na domaine boobu mën nañ ko cee déglu. mais lii jarul sax jàng droit wala ngay jàng leneen dafay laaj rek nga nekk ab sénégalais dëkk ci réew mi. xam ñun daara ji ñun liñ ñu jàngal sëñ Abdou Lahat moo ñu ko daan wax daan wax ni ngeen baal ma day wax ni jàng tubaab ñetti étape la. sëñ Abdou moo ko daan wax. <laughs> mu ne étape bu njëkk bi mooy dañ lay jàngal nooy naxee. xam nga nooy naxee non dañ lay jàngal dañuy fexe ba kenn du la mën a nax étape bu njëkk mu ne bi ci digg bi nag ñu jàngal la nooy naxee boo demee ba université ñu jàngal la nooy naxee te kenn du ko xam tey loolu moo loolu darsu sëñ Abdoulaat boobu moo feeñaat ci réew mi moo tax kuy wax naan droit dafa élastique mooy xanaa droit tubaab bi moo élastique droit weesuwul un plus un égale deux man droit islamique laa jàng boo déggee ñuy wax droit am na foo xam ni day laaj ay interprétation sëñ bi l'islam mooy amut ak dara l'islam moom mu Farba may ma rek pour dama la ko ñaan xam nga yow moom sa droit ba mu droit bu dëgër la je le respecte beaucoup moo tax damay ñaan rek encore une fois nga bàyyi ma déroulé waaw ñu ñu dégloon la bëgg a wax ni droit lii jarul jàng droit monsieur le ministre mooy li fi am mooy Ousmane Sonko ci république la nekk buñ gëm ni ci état de droit la ñu nekk ñu am ñetti pouvoir le pouvoir exécutif le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire loolu mooy république bi fii Sénégal depuis indépendance ba tey moo fi am ku ci ne am loo moom ñi nga xam ne ñooy atte ab pouvoir lañ république bi moo leen ko jox ñooñu tey ñoom ñoo atte ni waa DGE yéen yem leen seen place yéen ay simple fonctionnaire ngeen man mi àttee nga xam ne nii maa prêté serment république bi jox ma ko maa ni kii mënu leen koo tere nekk candidat loolu nag moom la DGE ci li ma jàpp ñimewuñ ko bañ man loolu laa gëm ah damaa jàpp ni dañoo nekk ci ay calcul ak nekk ci sondage di xool nu ko nit ñi di gëmee mais dama gëm ni Sénégal mu àggagul fii ñu ko bëgg a indi ñoom <laughs> parce que réew mi ku ko xam laa wax nga am information loo am fit am fit am na foo am doo fa àgg ñoom ñoo doon wax nii la force rest à la te tubaab bi dañuy wax ni la loi est dure mais c'est la loi. monsieur le ministre gis nga réew du lu ñuy caaxaane Ousmane Sonko tey fee mu nekk tëdd fa lalu hôpital loi moo ko fa bàyyi policier bii nekk ci taxaw ci ci ci yoon wi. man maa laaj tey permis ma jox ko ko te du ma discuter moom loi moo ko may. loi boobu tey moo teg ma ki sàll ci pale bi police nekk fa ak gendarmerie di ko àtte di ko di ko di ko protéger. ba bu la fekkee sax ci mbedd mi ñu ni may leen président mu ngi ñëw loi boobu moo wax ni Ousmane Sonko jox leen ko ay fiches gis nga loi moo ñu tënk ñun ñëpp. bu ñu demee nag ba réew mi te ñun yàlla mooy àtte man dama mus a gëm ni régime bi il faut yàlla àtte ñu ak ñoom. parce que dañoo gëmoon ni bu Ousmane Sonko bu bu jugee nekk ci jafe-jafe ñu ne na Ousmane Sonko faalewul yoon na dem wuy ji. dafa war a respecter sunu institution yi. tey waaw mais parce que aussi vous avez à yéen à plusieurs reprises. non Fatou Abdou. xoolal loolu la ñu doon wax pour recuser juge. non dafa am logique bu ma nekk ñi doon wax tey xam nga réew mi. man man ba léegi combat bi dépassé wu ma. parce que man damaa mus a gëm ni. Mhm. Euh, looy ren di sa loxo lay naaj. te wolof nee na kuy màndi kuy kuy naan di làqatu boo màndee feeñ. loolu wax wolof la kuy naan di làqatu boo màndee feeñ gis nga nit lépp looy nëbb. bis dina ñëw mu leer nàññ ñi doon wax ni la force reste reste à la ah ñi doon wax ni Ousmane Sonko na dem wuy ji yoon tey yoon moo ni Ousmane Sonko moo am dëgg tey ñi bëgg a weñ loxo yoon mooy ñi war a protéger yoon gis nga euh, monsieur le ministre Farba yow xam nga ni yow xam nga réew mi yàgg nga ci réew mi kenn mënul wax ni xamoo Sénégal réew mi ñun ñoo ko bokk Sénégal am na foo xam àggagu fa man damay wax ni il faut ñu dellusiwaat gis nga bu ñu tiit ba yóbbu réew mi ci situation boo xam ni duñ du ñun arrangé kenn mën nañoo politique mën nañoo waxante mais nañu fexe ba nit ñi am espoir ci li ñu bokk ñun ñëpp muy yoon parce que tey jii man dama gëm ni DGE amul fitu bañ a jox Ousmane Sonko fiche man loolu laa gëm parce que nag man xam naa tuuti Sénégal. kon kon coolu jaru ko. no mais dama yox mais mais dañuy waxtaan man loolu sama gëm-gëmu bopp la. Mm-hmm. mais nag dama gëm ni tamit. mais mais bu ñu waxee ne bu ñu waxee ne ñoom liggéeyuñu tey eh, est-ce que aussi mënuñu am bonne fois que ne suba bu demaatee mën nañ ko jox fiche de parrainage. man man loolu laa jàpp man man ba ba boo gisee man defuma benn problème damaa jàpp ni comme que nee nañ liggéeyuñu tey Ayib Daffé li mu wax leer na nee na dina xëyaat dem bu xëyee dem dañ ko koy jox. léegi nag ñu xool ñoom rek euh, yoon may na leen ñu def recours ñu def ko mais man gëmuma nii Macky Sall bi ma xamoon man bu baax gën koo xam far ba Farba Farba Senghor mi parce que moom bi muy nekk PDS man maa ngi jàppale Macky Sall kon xëy na mën nañoo bokk parti bi gënuma ko xam gëwuma ni Macky Sall 4 mois yu ko fi desee dina nangu dina nangu lii jaar ci nguuram donte ñun ñëpp nangu nañ ni justice bi am na problème. dina nangu lii jaar ci nguuram ça veut dire mooy ab ab juge àtte nga nga ngay ngay nekk di def ay manœuvre pour ñu bañ ko appliquer man dama jàpp ni loolu. loolu dama jàpp ni. waaw mais mais xam nga recours ak pourvoi en cassation. imam gis nañu non non man moo tax ah, damay wax damay wax patriote. mais mais recours yi imam sunu xarit nga ñun. recours yi waa nga. parce que fa nekkoon. non dégg waaye nag am man du ma kenn. man xaritu réew mi la voilà. man réew mi la àndal encore une fois dafa am lu ma gëm te jàpp naa xam nga eh, eh, loo a wax xam nga boo nee du ñu def manœuvre tey. Eh, ñu def pourvoi. en cassation loolu ci ci ci l'ordre normal la mën a bokk ci wàllu yoon parce que ay bànqaas yu leen yoon may la mën nañu dem ci yoon. Mhm. am dëgg comme mën nañu dem ci yoon bañ a am dëgg est que foofu mën nga wax ne euh, jàpp nga ne wala am nga yaakaar ne y aura pas de manœuvre pour faire annuler la décision. non man damaa rafet njortu ak bon fois que ni am na am na li naan impasse am na loo xam ni. Euh, ñoom duñ ci àgg parce que man ñu yor nguur gi am na ñu ma ci xam am na ci ñu ma fréquenté jàpp naa ne tey am na ci koo xam ne dina dem dina am courage ci ñu ko wër ne ko président trop c'est trop bu ñu àgg si fii buñ àgg ci impasse bi loolu laa gëm ba nii may wax ak yow nii Ousmane Sonko dinañ ko jox ficham loolu nag sama gëm-gëmu bopp la parce que nag au moins man xam naa Sénégal man dooguma nii rek di wax réew mi xam na am na lu ci xam tuuti kon nañu rafet nañu rafet njort ni Ousmane Sonko dañ koy jox ay ficham gëm ni ab juge moo ko wax juge boo xam ne nii moom tey jii bi bu Macky Sall prêter serment pour nekk président de la République ab juge moo koy moo moo koy moo koy bind. juge du du n'importe qui ci am réew. léegi nag mu des euh, juge Sabassi fay man foofu laa bëgg a ñëw gis nga réew euh, nit ku nekk yaay dugal sa bopp ci histoire Serigne Touba ay waajuram dugaluñ ko ci histoire taxawaayam ak fit wu mu amoon ci contexte boo xam ni. nit ñi demoon nañ ba ñàkk yaakaar mu ñëw wane ni lu situation bi métti métti na nga ànd ak yàlla loolu laa am ni bu dee ni am na hommage bu may rendre juge bi ma rendre ko ko tey parce que wane na ni ba léegi Sénégal am na magistrat yoo xam ni lu pression bi bari bari lu tere dañuy appliquer yoon yaa ngi dégg te ubbi na yoon wi maanaam Macky Sall ak ñi ànd ak moom il faut ñu gëm ni nguur gudul nguuru yàlla day jeex waaye fexeel ba booy jeex mu rafet nañu dellusiwaat leen ñu waxtaan réew mi am na loo xam ne xaju fi am na loo xam ne xaju fi yàgg naa ko woote woon waxtaan ngeen taxaw bañ gis nga gis nga gis nga monsieur le ministre waxtaan non bàyyi ba ma daanee da nga jël ah. dama la bëgg a wax nii ah. gis nga am na loo xam ne buñ bu ñu àgg foofu parce que gis nga manipulation d'accord mais lu lu ni franc lu ni nañ lu ni loolof nee na lu ni gàññi kenn du ko kenn du ko kenn du ko wér bi li mu wax nañ jox Ousmane ko ay fichier bu dee da ngeen a tiit ni ñun bu ñu wàccee sur le terrain dañuy jël 3 millions sénégalais yi wala ngeen yaakaar ni bu Ousmane ko wàccee pour parrainer nit ñi dañuy rangaat activité Pastef départ xaw parrainage bi tamit kenn yëgul ni sax Sénégal am na parrainage. Ah, loolu boo gisee xam nga ñoom ci ay sondage lañ nekk ak ci ay calcul. mais parti yi ñu dem quand même à la mais par rapport ak engouement bi mu daan am Fatou Abdou amu ko. ñun ñu ay élections yàgg nañu fee fekk mais candidat yi. ñu ah, parce que le peuple sénégalais pas seulement à Dakar ah. xam nga parrainage amatul riir amatul riir de. non dama lay wax parce dañuy dem. xam nga sérieusement dafa am lu ñuy bañ. te loolu amatul te loolu. Ah. mënuñ mënta ñàkk mu am. amatul riir xam nga. korog dama lay fàttali benn affaire bu am solo. oui bu terminer si ah, loolu Fatou am. Mhm. korog bi juge bi appliqué ni dafa tas Pastef pourtant. dañoo jël décision ni tas nañ Pastef ci saase rek dañoo dem ci siège yu Pastef yëpp. dindi commencé di dindi posture yi di dajji kenn xoolal ñun ñëpp ku ne dem toog sa kër. parce que loi moo ni tas na léegi lan moo tax loi ni delloo leen Ousmane Sonko ay fichier muy indi coow kon ça signifie lii dafa am am lu ci yàlla bëgg a wane lu ci yàlla bëgg a wane Fatou xam nga mooy la na ay décision yu fu yoon jël yoo xam ne d' accord leen ci waaw mais mais mais nga xamante ne yëpp am na fi aussi non comme peut pas dire que dama lay décision ñu jël ko gis nga boo fàttali ko ñu ne ànduñu ci man li ma li ma fekkee rek laa mën a wax Ousmane Sonko boo fàttali ko bi ñu ko njëkkee convoqué ci affaire Adji Sarr lu mu njëkkoon a wax dañu woon du wuyu ji dañu woon du wuyu ji mhm. mais ay nit ñoo xam ni dañoo ànd moom ci ngor ak ci fulaak fayda ñoo ne ko yoon dañ koy wuy ci mu bàyyi décision bu njëkk ba mën naa ci cité ku mel ni sëñ Abdou Mbacke ah, mais est-ce que ma daaneel rek monsieur le ministre te li ma wax dafa am ndigal day wéy ndigal day wéy déglul mu dem wuy ji hmm. amul benn yoon buñ ko musee woote wuy jiwul déedéet après kay wuy jiwul waaw déglu rek bul ruubee ah, waxtaan dañ ko dañ ko dañ ko fii ko door ko pompe à hmm. yaa ngi dégg te boobu da doon wuy ji loolu ñun fi la ñu fekk parce que réew mii dafa am loo xam ni ñun ñëpp am intérêt ci sàmm ko mooy république bi waaye ki war a sàmm république bi ki ci jiitu mooy le président de la république parce que nag loo waay mën a wax réew mi ab Abdoulaye Wade jaar na fi dem ab Abdou juuf jaar fi Senghor jaar fi Macky Sall bu mu mujjee puso bi mu réer man yàgg naa di ko wax ñii di ko wax naan tey xoolal acca acca acca xoolal ñu ci bëree bëri bu perte nguur gi ca ngoon nga ñu commencé di ko saaga lii mooy dëgg yaa ngi dégg kon lii dëgg mooy. dafa am loo xam ni mënta ñàkk sénégalais yi ñoo ko bëgg mooy candidature Ousmane Sonko. alors maanaam nañu nañu nañ jéem a nañ jéem a nañ jéem a xoolal yaay àdduna bi àdduna bi yëpp tey ak li yëpp ci sénégalais yi ak intellectuels yi dañoo gëm ni. ñoom benn objectif lañ am mooy fexe Ousmane Sonko bañ a nekk candidat très très bien mais nañu woon àdduna bi ni ñun ay gentleman la ñu politique affaire u gentleman la d'accord affaire xoola affaire u <laughs> gentleman wanee ni xoola affaire bi xoola <coughs> très bien dañ jël la mhm. ñu def fair play d'accord imam ñu wàcc sur le terrain sénégalais yi àtte am ngeen am ngeen yéen nee ngeen yéen a yor meilleur candidat muy Amadou Ba continuité la mais nañoo bëri ñun. Ah, alors ah, alors parce que même sagal sax xam nga tey tey tey ku jàng droit. ma ne tribunal ba ñu waxee ne kaay leen indi seen argument. Eh, non nangu leen dem non argument ah, tuuti magistrat le ministre. gis nga gis yi. foofu laay ñëw. ma daaneel damay daaneel foofu. sunu magistrat yi dafa am loo xam mérito na loo xam ne du ngeen fi na loo xam ne boo ko ñaawalee boo ko ñaawalee yow mënoo rafet nañu sagal suñu juge yi sagal suñu magistrat yi. mais imam xanaa loolu loolu tey tey ngeen koy wax yéen. non man loolu laa mos a gëm man sama discours mosul changé demal ci samay archive man république laa mos a gëm Fatou Abdou mais république bu en tegu ci ay valeur tegu ci ngor tegu ci dëgg man sama discours mosul changé man damaa mos a gëm ni nañu protéger république bi mais république li koy protéger mooy ñu fexe ba kenn ku ci ne lii sa ak sa yelleef ñu jox la leer na waaw ñu ngi ñëwaat ci yow débat bi des na <laughs> alors euh, monsieur Diatta décision bi yow aussi également bëgg naa ci am sa xalaat euh, ci li nga xam ne moom la mandataire bi wax que ne dañu ko bañ a jox fiche de parrainage est-ce que mënuñu am yaakaar ne suba wala altine mën na dem ñu jox ko fiche de parrainage ñoom ñu door li nga xamante ne mooy wut seen ay parrainage mais également la la décision du du juge et le désistement hmm. bu agent judiciaire bu état bi waaw Euh, jërëjëf Fatou Abdou gis nga loolu dama bëgg rek ñu dellu tuuti ci histoire bi xam nga lii man man lii bettu ma te xam naa sama nawle sénégalais yépp tamit lii bettu leen décision bi buñ delloo keroog sa njëlbeen nañ naan Ousmane Sonko président Ousmane Sonko par contumace nañ ko condamné woon ñu delloo tuuti débat bi au niveau de la compréhension de sénégalais nit ñi naan waaye luy con contumace luy contumace ñu bëri jour boobu lañ dégg luy contumace mm-hmm. bañ na leen bu demee répondre justice. Mhm. jour boobu lay contumace bi di daanu. du dëgg du loolu lañ ñun ñëpp lañ leen déggoo.